auzu billahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñi ngi nuyoo mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yi di leen jot tey ji sunu mbégte mu kawe ci noonu ñu teew ci barabu tedd tedd di barabu jumaay Touba teewaay bii ñu fi teew nag daayira xidmatul xadim di daayira tappise yi nga xam ñoo seq Touba ak mbakke ak li ko wër te Baye Cheikh Diagne jiite ko ak mag ñi mu àndal ñëpp ak waa daayira bi ñoo maase am ak dogu am ak bëgg ceesalaat baas yi nga xam ne daa nekk ci jumaay suñ Tuubaa ji te nekk ci yokk yi baas yi nag daa xaw na naajaan tuuti am yu ci yàqu am yu ci xaw a ràpp ñu daal di booloo xalaat ne ginnaaw ñun tapissier mooy suñu liggéey te doomi dëkk bi lañ njabootu Sëñ Tuubaa lañ danoo war a góorgóorlu boole suñu doole boole suñu xalaat ñëw ànd ñëw defar ko biñ ñëwee fii ci daayira Muxaddamatul Xidma ci njiitu jëwriñ ji toog yëglu ci moom mu jox ñu ndigal ci ndigal sëñ Mouhamadou Mountakha nu maase ànd ko xëy si woon tey ci àllarba ji doon ko tàmbali waaye ñëw nañ ñaar fukki baas ak juróom-ñaar daal di fukki bëgg incha allah bu ñu delloo waajaat ñëw ba keroog baas yëpp di àgg ñu ngi sant ñëpp ku fi teew te bokk ci xidmatul xadim jéego yi nga dox ba ñëw fii yàlla na yàlla jégal sa bakkaar yëpp boo yëg ak boo yëgul jéego yi ngay dox ba dellu sa kër yàlla na yàlla defal yoo xam ne day yaatu ba faaw nga di ko dund ba ca kanamu sëñ Tuubaa ci àjjana ñu ngi ñaanal tam sëñ Mouhamadou Mountakha yàlla sàmm ko aar ko moom àggale yéeneem yëpp ak sumbam yëpp naanu koog moom ci barke Cheikhul Khadim waxtu timis daa jege te sëñ baa ngi toog Baye Cheikh Diané ngi toog jëriñ ñëpp ngi toog moo tax ma doon nuyoo noonu di tënk rek wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waa daaira Xidmatul Xadim bi lëkkale tapissiers yi nga xam ne ñoo nekk diggante Touba ak Mbacké te Serigne seex Diané jiite ko ñoo ngi leen di nuyu bu baax ci tur Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér ba mu àggalee yéeneem yëpp te nu ànd koog moom di leen nuyu ci tur daayirat Muxaddamatul Xidma ci njiitu Sëriñ Afia ak mboolem daayira bi yëpp am mbégte ci jataay bii lool muy jataay boo xam ne jataay bi liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek la ngeen tàmbali ko ci barab bu tedd bii ni ko waxee woon léegi nag bi ñuy xool liggéey bi rek barab bi dafa doon barab boo xam ne ñun ñi nga xam ne nekk nañ fi de ñaar fukki at juróom wala lu ko lu ko jege ndax 2014 ba léegi ñu ngi fi ñaar fukki at juróom-ñett xam nañ ne lu fi waay def rek Sëñ Tuubaa la ko def loo ndax ay yéene yu bari dafay agsi te ñi koy yéene it dañ koy man waaye duñ ko mën a mottali mukk fii ak Sëriñ Tuubaa joxu leen ci ndigal gis nañu it ñoo xam ne dañuy agsi rek yem ci dara daal di koy mën a def daal di koy def ca saasa loolu nag moo ñu xamal ne ku fiy liggéey ku ne. sëriñ Tuubaa moo lay liggéeyloo sëriñ Tuubaa nag du liggéeyloo ko mu nar ta fay kon na seen xel dal na seen jot rafet na seen yaakaar dëggu sëriñ bi daf maa wax léegi ne ma noonu day sëriñ liggéey def sëriñ Tuubaa na sunuy kër defar na sunuy mbir kon waruñoo seetaan daraam di yàqu waaye ma di leen xamal ne defar defar seen mbir de nu mënoon a toll ci lii lay gën a defaroo fii nag dafa doon barab boo xam ne dafa doon barab boo xam ne des fee mën a jariñoo jariñe fi ndax képp koo xam ne dug nga ci biir liggéey bi rek dangay ngay dugg ci biir waxi sëñ Tuubaa jooje moo waxoon ni wax fir li man banaw binaa ahal rafia wax fir li man amarahum bihi jamian wali jamia man aanahum ala binaa ahal lati bi fadlika taala waxoon naa ko barki démb ci bi menuisier yi liggéeyee bunt bi ba noppi ma ne leen dimbali ngeen seen bopp waaye dimbali ngeen ñu bari ñu ngeen xamut ma ne leen kii jënd wér ni sax andi ko ci dëkk bi ba ngeen mën koo jënd yéen kooku sax dimbale waale ngeen ko ki andi papier ci dëkk bi ba ngeen mën koo jënd euh, ponse ci li ngeen di def sax dimbali ngeen ko waaye yéen ñi itam dimbali ngeen ñu bari te yéegu leen ko ndax ki ki fi andi base bi ci réew mi dimbale ngeen ko waaye ki andi wëñ gi dimbale ngeen ko machine bi dimbale ngeen ko Senelec mi leen jox courant sax dimbale ngeen ko kon nag rawatina yéen ak lu aju ci yéen ci seen i bokk Sëriñ Tuubaa dafa sakkan te li muy sakkan sakkan nag ci barab bii la gën a sakkane ndax barab bii li ñu dégg mu wax ko ci mosuñoo dégg mu wax ko feneen dégg nañ ci làmmiñu Sëriñ Fallu mu ne bi ko ko sunu borom joxe wan ko ko ba mu gis ko malaayika yi dikkal nañ ko bëgg koo defaral mu ne leen jërë ngeen jëf sant naa leen waaye nag dama am njaboot te bëgg ñu jariñu ci jinne yi dikk nañ bëgg koo defaral ba mu mel ni wurus ak or mu ne leen mu sant leen gërëm leen ne leen damaa am njaboot te bëgg ñu jariñu ci kon nag képp koo xam ne dox nga ba laal ci dara yow jàppal ne bokk nga ci njabootu Serigne Touba géegooy mu bëggoon ñu jariñu ci te Serigne Touba ku mu bëggal njariñ nga am njariñ àdduna ak àlaxira kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ne liggéey bii liggéey bii lu ngeen ci farlu rek doyut lu ngeen ci góor góorgóorlu doyut su ngeen xamoon la ca nekk Cheikh Saliou Mbacke mi ñuy fàttali ko tey jii day dafa daan wax ne ku am yërëmande la ci lépp de waaye kuy liggéeyal Serigne Touba moom du ko yërëm ndax dafa janoog pay ga ku koy liggéeyal nag foo ko mën a liggéeyale liggéey booba am na njariñ baax na bari na bénéfice te nangu na waaye nag liggéeyal ko ci bare bii nga xam ne moom digale ma woon te mu joxe woon ko te wax ci lu mu waxut fenn moo ëpp doole foo ko waaye mën a liggéey fépp nag a baax fépp fu ñu koy liggéeyal rek ngënee la nga fa te moo gën leneen lu dul moom waaye nag li baax di baax baax baax gën da koo da koo féete kaw kon nag sant leen yàlla bu baax a baax ñoo ngi leen di ñaanal yàlla bu ci dara ci seen xol lu dul yéene ju sell ak ixlaas ndax ci ixlaas rek la nit di amee lam war a am lépp lu liggéey lu mbir rafet rafet ak lu mu jan-jan ak lu mu sell sell bu ca ixlaas amut dara amatu ci ixlaas boobu nag yàlla nañ ko suñu borom defal ndax nattable wuñ ne Sëñ moom la mu waxoon mooy li nekk rek bu leen bu ko kenn gërëm nañu gërëm lawbe bi waaye bu ko kenn xarab nañu garab xarab lawbe bi moom yett ndab li Sëñ waa moom ndab luñ ko taaj te mu set dana ca def waaye nag am na fa la ju del ne du def ci ndab lu setut ndab li nag bu rëyee yow a bu tuutee yow a waaye moom la ko ca war te mooy duy ko moom dana ko def kon nag nañ santaar yàlla bu baax te fexe ba ndabli li set te rëy te xam ne euh, la Cheikh Mouhamadul Fadil waxoon rek man sama yéene xatut euh, néewul xatut waaw suñ ñaawul xatut xatul ñaawul nañu fexe ba ñu ndab yi ñuy am bu xat ba mu taq bu setee te yaatu rek danañu defal loo xam ne man danañ ci mën a jariñu man cee jariñe ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm te di leen séentuwaat àllarba ak jàmm incha allahu kenn bañ a manqué te li ñu leen ci yéene ndax ñun de fii yéene nañ fi ñëpp lépp ndax xam nañ li fi ne xamuñ ko sax waaye am na luñ ci xam waaye liñ fi xama ko su néew de yéene nañ ko mbokki taalibe bi yëpp te buñ sañoon ñëpp jariñu ci nañ ko yéenee menuisier métallique yi yéenee ko ko menuisier bois yi ko électricien yi noonu lañ ko yéenee tapissier yi noonu lañ ko yéenee mécanicien yi noonu lañ ko yéenee ñëpp buñ sañoon ñëpp jariñu euh, loolu rek lañ ñu fi bàyyee kon nag yàlla nañ suñu borom defal defal ñu bokk ci ñu war a jariñu ci liggéeyal Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi lay ñaanal suñu borom yàggal suñu kanam li nga yéene ci yoonu suñu mag bi yàlla na ko am ko bëggee euh, man nag dama lay ñii gone yoo xam ne daal yàlla def na ci ñoom loo xam ne kontaan naa ci li may jëkkee mooy àndandoo gi ñu ànd nga ñaanal leen bu ci bu ci saytaane dugg ndax wax dëgg yàlla man 74 laa ñëwoon ci dëkk bi ubbi fi atelier 74. ñëw naa ba ci déwén sa suñu laa door toj lu marché bi mhm. waaye bi ñu formé daayira beeg léegi gis naa ci ñoom pas-pas boo xam ne daal su ma soñoon ñu ñaanal leen ndax xam naa ne rek am nañ yéene joo xam ne lii ñu lii ñu def nii kenn ku ci ne am nga yéene def ko gërëm ci lii nag gërëm ndax dama mas a dégg sëriñ Ibra Laye mi sëñ bes sëñ bes Fall alxuraan ñuy sikkar ñu ne ko sëñ bi te ngaa wax gaa yi son nañ mu ne kuy tudd yàlla boo ko bàyyi lu muy bàyyi lu loo koy jàppal jërëjëf